waaw sant yàlla rek le fait que ñu tuumaal la ci benn mbir ñu tuumaal la ci mbir ku nekk di wax di bind façon version bu nekk dégg nañ ko ñun ba affaire bi amee parce que man maay ménagère am bi affaire bi amee ba léegi kenn lekkul kenn naanul parce que ñu ngi jóg di daanu di wër di xool nit ñi bonne volonté yëpp dugal ci seen loxo ba ci maître baaba Diop dafa ñëw plaide parce que dafa yor écurie maître Bamba ak maître Diagne maître Diagne président ñoom ñëpp ñëw jàpp chaque jour ñu ngi ci yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba tey jii yàlla leeral mbir mi parce que liñ ko jiiñ fondewul le fait que gel bi këf nañ téléphone am gestu na gis naa ko xees ku xees moo kii sama téléphone gis na ko xees ñu ni moom la bon justice nag justice la justice xool na xoolaat libéré nañ ko relax parce que chaque fois buñ ko waree jugé bu ñu ñëwee beneen partie bi du ñëw ba beneen partie bi ñëwul kenn mënul jugé comme que def nañ ko trois fois quatrième bi léegi gars yi jugé bi ñu jugé xool nañ lépp maître wax na ko nee na ci lëndëm gi mënoo xàmmee kenn te fi la fekk tonk ku xees la rek ku xees xam nga et di mbër boole ci mbër dafa siiw mbër am bayre fu bu juróomi xale doon xuloo fii léegi nga ni mbër mi la bon te it yàlla moo waxoon day jaar fii. bu yàlla ne da ngay jaar fi allah kulli xayrin foog nga jaar fa mu nit mënu ci dara pilier rouge a ngi nii ak yeneen ak yeneen mais comme que yàlla def na sutura ba libéré nañ ko ñu sant yàlla te it après dañ toog ak moom wax ak moom parce que sunu doom la parce que ñun ñu ngi ne añu wuñu di julli ji wuñu juma suba ba léegi ñu ngi ci yëg di wàcc ba yàlla def na sutura léegi nag dañ toog waxaat ak moom mu xam li champion la mu xam fi mu entourage xam nga xam nga xale la mook ay moroomu xale ñooy ànd xale moo ay moroom xaleem ñooy ànd mooy li ma wax ci biir wax ji rek yàlla mu tudd kenn mënu ci dara tey jii mën nga yor sa caméra bi di dem ñu ñu ñu ñu ne yow def lii wala yaa def lële wala ñu dal sa kaw toujours jot nga gis ñu jël nit tëj ko fi ba pare xëy bàyyi ko ne deful dara ay nit ngi ci kaso bi defuñu dara ñu ngi leen tëj kon nag li yàlla dogal moo ko dogal ci moom nit jaam day nangu dogalu borom bi nangu na ko gëm na ko parce que dégg nga lu ma wax si yaa ngi toog nee na ko man dama yor dama yor xaalis sama papa gaañu sama yaay laay dimbale moo tax may daan sama doole ci làmb ji mënoon naa defe leneen mais defuma ko parce que du ma sàcc bi nu waxee sàcc nga daw ma mënoon naa daw ñu dàqi ma wala ma rëcc mais daw ma dama taxaw ne leen mbër laa du ma sàcc no bu ñu jógee fii xam nga fu mu nekk day delluwaat jëli bagage am doog a ñëw dinañ ko bàyyi mu daal après dañ toog waxtaan ak moom nit ku ne nit la dinañ waxtaan ak moom gën ko ñaax parce que ku weex dunk da ngay moytu ku weex dunk dangay moytu lu xew ñu ne yow da ngay moytu waxtu maa ngi ngay mbër yor bayre ñu xam la nga def fi ay jaloore barki démb yaa bëgg tëj làmb ji moo mujj bëre corona bi bi ñëw kenn jooju moo mujj bëre tëj làmb ji ku ne gis na lu mu bëre ak li mu fecc fecc mbolaat ak lu ne fecc na ko waaw loolu la te xorom mi daa bi la indaale